jamono ji nga xamante ni ñi ngi feete lii di bis bi ñuy màggal wàllu ndox ci àdduna wërngal këpp mu mel ne béy na dëkk yoo xamante ni li ñuy dund jafe-jafe ndox béy na lool rawatina fi nga xamante ni mooy dakaar ci quartier bi ñuy wax ñaari tali jamono ji jafe-jafe yu métti la ñuy dund ci wàllu ndox waral ñuy yeewu ay guddi guddi ngir di root ay ndox lu ñu waral di dëfandikoo saa su nekk. sonn rek sonn rek xale yi nga xam ne dañuy jàngi sax dañuy ñàkk nelaw parce que heure bi ñuy bi ñu leen di yee pour ñu jóg jàppale ñu ci root ñu xaw ñu màgget daay màggat mënatuñ dara bon euh, moo tax nag fi mu ne sonn nañu waa presque mat na léegi un mois plus amuñu ndox ndox mi balaa muy ñëw ay 4 heures du matin 3 heures du matin boo ci yee élève du mën a nelawaat. dëgg yàlla metti na trop ndax lii baaxul ci mag mag ñi ñoom ñu lool di jóg ay 2 trois heures du matin ay 2 heures du matin te doo am ndox loolu tamit neexul ah nañu dimbali ci ndox mi. su facture su facture ñooy encore mu cherati. xanaa sonn. sonn nelawatuñu boo xam yandoor dégg nga instant bu nekk da ngay jóg di xool robinet bi ndax am na ndox ube amul bu amee tamit tuuti lay xelli saw sax moo ko gën a gaaw dégg tuuti lay xel li doo am sax ñaar paan bu mot da ngay dem di uti ndox waa wa oto ndox sax du fi ñëw. waaw jafe-jafe bi moom ñu koy dundee askan wi yëpp koy dund mu nekk lu metti nag lu metti lool ñëpp di ko dund ñu àndandoo ko. mu metti si ñun metti nag fa metti di doo nelaw doo am ndox. mu dem sax ba nga xamante ni daanaka ay 3 heures la ñuy yeew lu ko may doo am ndox. ak jamono ji nga xamante ni ñoo ngi jëm ci wàllu tàngaay ba léegi mënuñoo xam lan moo waral ñuy am jafe-jafe yooyu. ñun ñu tëdd ci laal yàlla xam nañu ndax boo tëddee tamit mi heure bu ñu yaa ngi dig di xool di xool 3 heures bu robinet bi ubbee day toq toq toq toq toq lay def dara amuñu ko am na ñoo xam ne sax ciy jaar duñu ubbi. balaa ñoo noddu koy tëj na bu yàgg am na ñoo xam ne sax ñoo duñ ci jaar. waaw ndox bi moom métti na ba si kanamu yàlla ñun ñëpp xam nañ loolu ndax da ngay xëy matinal bi tant que 3 heures du matin jotul doo mën am ndox bu 3 heures jotee 4 heures 5 heures mu coupé waat da ngay toogaa ba 3 heures du matin suñu maire ñooy nekk di root suba ngoon jàppal bàyyi war nañ ñoo jàppale daal xool lu ñu mën a def si ndox bi ba waaw ñu mën a jotaat ndox ak koor gii di ñëw nii ñaaku du ñu nalaw de fu mu nekk nii sonn lañu ne suñu doom comme lii sama euh, euh, euh, xarit bi wax rek xale bu ñuy jàng dañuy boros rek dem jàngi waa daa tombe sax seddaa la bu ta bu nekkoon tàngaay xam nga fu ñu jëm. mu dem be sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom kër yi dem di jàpp ci liggéey boobu nga xamante ni mooy warul ndox ndax buñ ko deful li ñuy soxla ndox ci bis bi duñ ko am. mais ni ñuy def par exemple sax dañuy jéem a ba bañ ne leen bàyyi la ñu mais dañuy bañ ñoom seen jom bopp ne ñoom dañuy rot. loolu yëpp lu ko mën a dindi daal mooy état bi jàppale ñu si ndox bi mën a gaaw ñëw ku nekk am ndox comme comme comme yeneen secteurs yi ndax man dama jàpp na secteur bi rek la ndax boo génnee dem talibé ne da fekk foofu gaa yi am ndox di rot nga génn dem biscuiterie benn tali ñoo ñoo ngi rot mais pourquoi pas ñun waa ñaareel mu ñoo am ndox. jafe-jafe ndox yooyu yokk ci li nga xamante ni moom mooy seeraay ndox bi teg si bu ñu fayul ndox daal dëjjil seen ay compteur ndax li ñu fayul ndox rek. dañuy indil ay factures yu cher ba pare suñu coupé instant yi nga xam ne amuñu ndox day mel ni compteur ba day yéeg a yéeg a yéeg ci xaw ba pare soo yéexee fay sa facture ñu ñëw couper la. sax tey saa yu robinet di tëj na facture bi day gën a seer saa yu robinet di tëj facture bi day gën a seer sonn nañ torop waaye wax dëgg yàlla saa yu robinet yi tëjee rek facture bi day gën a seer. waaw parce que xam nga boo nee yaa ngi dëkk rek ci ville bi nga ne yaa ngi ci dëkk ba pare li nga euh, warloo ak sa askan defuloo ko mooy benn da nga teg say compteur duñu facturer ñu di la fay bu weer dee boo fayul ñu ñëw couper la. boo leen tegleelee ñaari facture sax bu ñu ñëwee dañuy déjjati sa compteur yóbbu ko te duñ la jox ndox ma ca war duñ la jox ndox bu weer dee nga ñëw ñun la kay fay par force boo fayul ñu coupé la yóbbu te loolu ñu leen di fay dañu war a jox ñun kon li nu moom comme que ñoom ñu ngi leen di jox li ñu moom ñu nit nañu delloo li ñu moom. lu ñu utilisé li ñu consommé wul loolu la ñuy la day day lay facturé loo xamante ne consommé wu loolu tamit àq la baaxul. mu dem sax ba ñoom dàqatu ñu wàcc ci mbedd mi ngir wane ne nañ ñoom mere nañ loolu ñu yor wàllu nguur gi ci li nga xamante ne liy jund ci wàllu ndox donte bii Dakar lañ dëkk. man daal xaw ma direction bu bees xaw ma bu màgget mais ñaari tali moom defe naa ne man ba ma fi dëkkee ba léegi léegi ma am fi vingt 26 ans du ñu toog 6 mois yoo tëjul 3 mois boo amul pompe ci sa kër ci na ngay dëkk kër goo fi dugg nag muy ca commencement ba ba jëm ca xayma ba kër goo fa dugg fekk nga ko mu taaj ndox jël ay siwa ay barigo kër goo dugg nag nga xam ne loolu problème la. Ah, man affaire la ñaxtu xam nga rek ñaxtu moom jamono ji mooy loolu la ngay génn ñu dóor fi bal nga dee kuy perte après say mbokk koy perte mënuñu la fay doom ñu jot a dee si manifestation yi nan la demee ay ndàmpaay lay jox jàppal ba après bu ndàmpaay boobu jeexee jeex na dina leen fàtte moo tax du ma man sama ñaxtu leen la sama kaaraande. ah metti na torop donc nañ ñu jàppale xam nga lu ñuy bañ ñun ay mag lañu ñu ñu ñu génn euh, takk ay morceau yu xonq jëm sones xale yi déconné te ñun ay mag lañu du ñu jiite loolu. donc balaa ñuy jiite loolu nag suñu yaram tàng na nag sonn nañ de ku sonn nag fippu balaa ñuy fippu nañ ñu jàppale. ñuy màggal wàllu ndox ci àdduna wërngal këpp mu mel ne Sénégal jafe-jafe ndox daanaka am na fi bu baax a baax rawatina biir Dakar ci xayma yéen dëkkuwaay yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca ñaari tali du dund lu metti ci wàllum ndox donte saa su nekk ñu andi ay nit yu yees yoo xamante ni ñoo war a yor wàllu ndox mi ginnaaw ci atum 1996 ñetti structure teg nañ ko fi ngir yor ndox moomu li ko dalee ci wàllu SONES SDE ak waa ONAS ñoom ñëpp ku ci nekk def nga li nga mën ngi daal di saafara jafe-jafe ndox yi nga xamante ni biir Sénégal ñu ngi koy dund rawatina fa nga xamante ni mooy ñaari tali